loi bi mom ñun dañu japp né mënul appliqué wu parce que c'est c'est déjà impopulaire. li gëna graw ci situation bi yépp mooy manam loi bi entré gul en vigueur parce que le vin lay entré en vigueur te moment yi dafa am ñoo xam ne dañoo importé woon ay ay ay ay ay marchandises yoo xam ne sous l'emprise de l'ancienne loi la ñu téye ko ne duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko mën a dédouaner parce que il faut ministre bi day joxe autorisation ministre de du parce que c'est comme si loi entrait entraîné en vigueur le jàpp nañ injustice c'est loolu tamit avons interpellé la plus haute autorité de ce pays à ce que nous ayons des mesures par rapport à ça parce que nous avons lor ay ay doomi réew fait ci ce que nous avons proposé weesuwul ñu toog waxtaan nous sommes ñu tomber d'accord le ci sachet plastique dafa am ay effets néfastes ci dañu wara fexé mu jóg fi parce que limi causé xam nañ ko ci walu inondation ci walu yu baree bari waaye tamit amna na nu fi mëna joggé nu bokkul ak loi bi ñun dañuy miser ci collecte bi un mécanisme de collecte efficace bo xamante bi même bu fekkee taxe lañuy ñuy ci ci ci plastique bi de manière générale mu mëna financer collecte bobu mu plastique dootu non seulement plastique dootu am mais dina créer emploi bu ñu demee ba gis ne nag ba àgg ci sat boo xam ne gis nañ ne ah mën nañ fay jëlee plastique définitivement xayrun mais mécanisme de collecte boobu sax mën na ànd ak limitation des importations mais de manière compréhensible quand même déchets yi mooy problème mais utilisation plastique bi moom mënul ñàkk parce que dañ ko soxla demande sociale la léegi dése yi nag mën nañ ko collecter di ko recycler su boobaa dina jur lu baree bari xam nga déjà sachet plastique ci boppam ni mu nekkee ci réew mi ñu koy utiliser moo xam yi importé la am ñoo xam ne dañ koy jaay am na ñoo xam ne jaay mbuus rek mooy seen liggéey am ñoo xam ne mbuus rek la ñuy importé léegi noonu la amee ñoo xam ne ci sachet plastique ci ndox en sachet plastique rek la ñuy liggéey léegi nag bu fekkoo xam loolu ay ay ay emploi la bu fekkoo ne dañu lancé wu ci ban ci alternative bi ma wax nii mooy ñu jéem di ko collecté di ko recycler dañuy créé waat yeneen emploi yu bees parce que ñooñu di recycler ñoom dañuy dañuy dañuy am beneen liggéey am na ñoo xam ne fi mu ne jàpp naa ne mën naa am dañoo toog croiser les en tout cas la ñuy def amul solo bu loolu amoon dañuy mën a dem bu am liggéey bu fekkee dañuy wax ci jamono boo xam ne Sénégal émergent la ñu wax wax ne dañuy def mener ay politique de développement je pense que bu ay mesures yu mel nii paradoxe la euh, par rapport ak euh, vraiment yéene boobu forcing daal vraiment jàpp nañ ne gënul léegi nag euh, du ma wax ne lenn la ñuy def wala lenn la ñuy kii mais de toute façon euh, dinañ jaar fépp fu ñu war a jaar.